j'ai un téléphone je suis dans un live une personne appelle non non non on a comploté sur le dos de Mola comploté pourquoi Mola je vais comploter sur le dos pour faire quoi ça va m'amener du manger ça va changer ma vie ça me rend plus beau je complote sur le dos de Mola pour quelle raison un frère un petit frère pour l'âme

Du moment où ils peuvent faire ça, Ousmane Sonko ne pourra pas être candidat en 2024. Il n'y a pas de Mosna, il n'y a pas de Mossoul, il n'y a pas de Sifne, il n'y a pas de Sifoul. Oh, pendant le temps que vous vous dépensez le temps, essayez de détruire votre frère qui vous sauve, qui se bat pour vous, qui sacrifie sa vie, qui sacrifie sa famille, qui sacrifie tout ce qu'il a pour son pays sénégalais boudés, sénégalais mon corail. sénégalais bu sénégalais mon corps sacrifié man su ma vous allez m'atteindre si je vous avais lâché vous allez m'atteindre Soumalen Mayon tout direct atteindre moi. mais duma ko nangu je vais je l'ai refusé moi j'ai refusé de vous laisser m'atteindre Damata daw yag, je n'ai naa Gisnalen nak na fekk yëpp xam len ne je lis je lis tous les commentaires et j'ai regardé tous les lives sama ay xarit les amis c'est ce qui tu sais ce qui fait mal ay nit yo xamne da nga sacrifier sa vie pour ñom ñom ñoy delu bëgg la sacrifier ay doomu tekki wuñ dara ay nit yu tekkiwul dara ay nit yo xamne tu t'es sacrifié la vie pour eux hein? c'est les mêmes personnes Boy ñew ñu bëgg la sacrifier loolu mooy moi je sacrifie ma vie pour le Sénégal il y a un petit groupe de euh, de de charlatans qui ne sont même pas des originaux des charlatans yuy ñëw di leen gëmloo ay borom li ci y a un imbécile qui veut écrire partout dans le Sénégal Faut qu'on fasse mi ngi bind di sos duul lay def suba ba guddi jot ay dajale ay licci bu defee licci jaambur ba pare dajale 1000 dollars jël ben 250 dollars jox ko né da nga wara a séddale bi ak yenen nit. ku mu àndal affaire xaalis moo tax ngeen tas ngeen toog fii di déglu ay charlatan ñuy génn ngeen di jël seeni ay wax yu yàqu di ko jëmale ci doomu sénégalais bu leen deful dara man lan laa leen def man j'ai fait quoi lu ma leen amel wax leen ma bu dee da ngeen ma jox dix dollars wala cent euro wala jox ma cinq mille euro wala jël seen àddina jox ma ko man dites-moi et je vous le rends moi je suis un je travaille, je bosse pour ce que j'ai. Et je travaille pour le Sénégal. Et j'aime mon pays. Et j'ai sacrifié ma vie pour mon pays. Je pouvais mourir, hein. J'ai sacrifié ma vie pour mon pays. Et vous, les lâches, qu'est-ce que vous faites en retour? Ngendi, Voilà, nous Ah, ah parce que ben ben benn saay-saay ben ay boy yuy bind ay ñaawteef diko ko ci man mola Morgan man nan na koy sacrifier mola Morgan est un petit frère pour moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est quelqu'un que j'admire c'est quelqu'un que je pousse man ñi ngeen gis ci réseau yépp danaka 90% quatre vingt pour fekk nañ ma fi et je les ai boostés bo xolé tay ñu melni ay Akhenaton gii yi daf ma rusoon c'est ça la vérité est-ce que mas ngeen gis lu mel je ngay chargé ay nit ñuy banditisme pour zéro pour rien seulement que parce que je suis lâche la personne travaille pour le Sénégal et il fait tout ce qu'il peut pour le Sénégal attends je vais l'attaquer je vais l'affaiblir quelqu'un qui t'a rendu puissant Yalla, daf nelawul ku la dooleel nga defee dina la bàyyi nga néewal ko dole. mais Dieu est juste vous écoutez les Sénégalais nyom ñu ngi ci procès moral nyom bo xoolee tey ñoom bo xoolee si tu les regardes Bo xoolee tey ñoom ci li ñuy dox ñu ngi ci procès moral bu gawa grawa grawa grawa grawa. a garaaw a ils sont là ñu ngi ci tappale demande écoutez quelqu'un comme Aïssata Diop Fall écoutez écoutez dama bëgg déglu Adji Sarr wax publiquement mais man damaa nekk en état man dégguma ko li ma dégg mu koy wax mooy

je ne peux pas mettre le live de nabudash je ne peux pas le mettre parce que Naboudash il s'est permis de marcher dans nos cerveaux elle est très suivie les Sénégalais la connaissent nabudash c'est une amie intime de Gabriel Kane Moi, Gabriel Kane ni là. c'est des meilleurs amis elle marche dans nos cerveaux dégg ngeen fi Nabou Dash bu ne na ma tata Marème woo elle est dans son elle est dans son travail Nabou mi ngi def liggéeyam elle fait ce qu'elle peut parce que Sénégal dafa bari ay nandité ay nit yo xamné dañu défé né man naño dox ci maayanu sénégalais yi sort elle nous dit wa Ousmane Sonko dé wa aji muñel Ousmane Sonko violé wu la ñun ñep xam nañu waaw loo leen sék nak yéen a ko bu la tëddee wala nangam nangam Nabou da ngay fen ci moom Ousmane Sonko Massoul de Adji et ça on le sait pourquoi vous di manipuler l'opinion pourquoi vous manipulez les sénégalais pourquoi vous marchez dans nos têtes pourquoi ngeen di fooye xelu sénégalais pourquoi pourquoi vous marchez dans nos têtes gis nañu avocat bu dem ci télé TFM mu Karema, carrément adduna bi TFM laa la wax de xam nga lu mu def jël audio bu ñu manufacturer audio boo xam ne Sonko mi ngi doon wax ci Macky la et merci choix bu ah by the way pour won leen ne man aw ma noonu ci combat bi man sama focus c'est de libérer le président Ousmane Sonko de ses sorciers qu'il soit candidat mu dem deux mille vingt quatre gagné ay élections waaye yéen bu ma leen toppee dinaa leen tegal vidéo bu leen di déglu loo ne ñoom seen sujet c'est de travailler jusqu'à ce que Ousmane Sonko pour pourra pas être candidat balaa may ñëw ci loolu ma tegal leen li nga xam ne moom mooy El Hadj Diouf El Hadj Ousseynou ñun ñëpp ñu gis ko mu dem TFM ah di wone vidéo fen tappale sos adduna bi yëpp di ko seetaan sur un plateau de télé Pape Ngagne Ndiaye xam ne El Hadj li muy teg nii c'est illégal mais moom Pape Ngagne Ndiaye ba léegi mu jël affaire bi mu teg ko mu indil ñu caay-caay bi pour lan pour tout simplement manipuler les opinions nañu dem ñu déglu ko voilà jërëjëf Chouaïbou ah Chouaïbou voilà lii boo ko defoon man ci sama ojo yi dina ma neex lool xam nga xam ngeen audio yi ñu dagg wala yu ñu debe daax xam nañ ko ñëw leen bismillah dafay indi benn vidéo boo xam ne démb takku show bi maître El Hadj da waxee ba pare mhm. takku show moo doon tontu maître El Hadj ci internet bi takku show ba fàttali six mois ci ginnaaw. Mhm. coow lii mais El Hadj Diouf yàlla yóbbu ko ca TFM naan déglu li Sonko wax. Mhm. defoon nañ ko fii dafa dafa. waaw léegi dañ ko dagg dugalaat ko ci. internet loolu la mënoon tontu maître El Hadj Diouf. léegi maître nag victime la lu tax mu nekk victime nag. moom lañ lu tax mënoo woon indiwaat loolu. moom lañ indi boobu. waaw mais dañuy déglu di maître ba pare. d'accord télé télé ba mu dem euh, wax dëgg yàlla ma jàpp ne télé bu crédible la. lam fa toog di ko wax ñu dem xooli ah, premier élément bi lan la maître wax démb ca TFM. après ñu dellu si waat écoutez yi nga mu ne danaa taal ma yore naa fii kii bi mu ne. il ment regarde mu ne. regarde. almet bi taal dëgg bi am naa deglu déglu leen lii regardez ça. dé am na béykat boobu. flagrant kii il faut xew moom. kii moom Sénégal la bañ Sénégal la bañ mu ngi ni mu ne mu bii taal dëgg bi am na mu dégg wax. mu ko tegal dama la tegal. mosuma dégg fenn fu Ousmane Sonko waxee ni. almet bii taal dëkk bi yore na. maa la koy tegal kii koy bu la gën a metti. maître maa en attendant nga koy trouver dama bëgg nga tontu ma ci leneen si vous plaît. léegi rek ma tegalu ko léegi. sarax ma rek ma tegalu ko la maa gën. amul sarax ma maître soo bëggee jàppoo ni dafay xaw a. non non may ma minute minute minute al almet ñi ma doon wër boobu ba léegi pour taal dëkk bi almet boobu jot naa ci. dégg ngeen lii dégg ngeen lii dégg leen léegi ñëwaat leen. loolu la maître yan woon démb yóbbu ko ca télé boobule euh, jàkkaarloog Pape Ngagne Ndiaye gannaaw ba nag ñu indi leen vidéo bi nga xam ne mooy vidéo vrai bi defoon nañ ko fii ci wàllu fajiri mais xam nga maître nag ndax da ko gisut wala ndax day dof doflu wala da ko rëcc ñu dem rëcc dellu si waat. nii noonu lii mooy daggitu vidéo bi nga xam ne moom lañ gis ci internet bi partout ñu di ko partagé euh, ñu ni daal waa ji wóoratul am na sax ay tiktokers yu ma gis ñu jël ko comme duyoo. da wax ne kat ay la yéen ci Sénégal doon jublu pour bëgg koo fal ay mbiram wóoratul ñun nag dem nañ jeexi ba gis vidéo vrai bi fan la wax ji commencé Zak ba léegi ñu àndandoo dem xool wax ji fan la commencé après ñu dellu si waat. Coupe d'Afrique moment fort la temps fort la pour la jeunesse de ce pays waaye Macky Sall gañewul d'Afrique de peuple sénégalais moo gañe Coupe d'Afrique mm-hmm. bu ko wax kenn askan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 voilà mi ngi noonu Fatou seen diir element bi mi ngi. xam nga lii yaatu la li mi ngi nekk. xam nga li li moy lâcheté ci société. euh grand monsieur Abdou Diédhiou Kasumay ma ngi lay ziaré Abdou ma ngi lay ziaré bu baax mais Abdou ne fait pas d'erreur de communication motax ma épinglé la je n'ai absolument pas fustigé une personne. De Goulom, Ben yoon ci sama Morgan donc parfois il faut faire attention à ce qu'on dit parce que de rediriger débat Il faut savoir ce fa xam nga yow lire ce commentaire bi Ousmane Tunkara est en train de fustiger Moula Morgan un petit frère qui m'appelle qu'on parle chaque jour je te dis Moula Morgan et Ousmane Tunkara ils s'entendent chaque jour presque une heure de temps c'est mon petit frère c'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un qui fait son travail de sa manière. Et moi, je fais mon boulot de ma manière. Donc, c'est seulement faire une, une clarifier, clarifier pour encore Mouler. Voilà, donc il n'y a pas de fustigé Moula Morgan. Merci beaucoup. Légui, nous continuons ci waxtaan bi nga xamné mom lañu doon waxtaan. Gaay, man ma ngi ci focus 2024 de. Xam nga kañ la tambali focus 2024? 2022, mille bi mu tambalé la tambali focus 2024 élection législative dafa jot ma campagne député yi ñu wara fal Sénégal yépp ñu fal leen élection euh, euh, local jot ñu campagne li ñu wara fal maire yi ñu wara fal yépp ñu fal leen lolu mo am. élection législative bi mu jotee fii ci Amérique man dama sol sama yére dem campagne amul nag sama xarit yi waa Pastef les braves dames que je connais comme ay Marie-Jeanne ay ñoom Aïcha Touré ay sama frères yi bari nañ fi ku lim juum la grande Ndiaye ils sont là mais boo leen woowoon téléphone nga woowaa waa Pastef yëpp nga leen leen kan moo gën a campagne Ousmane Tounkara kenn mënul wàccee sama lox ak grand maam Thierno Ndiaye macha allah. amul ben doomu Adama qui peut me descendre la main amel je le dois à qui man amel pour dem campagne je suis allé en campagne pour élire les députés du président Ousmane Sonko mais je ne le dois pas je l'ai fait par conviction man ma jël sama temps sama énergie sama essence sama ma daw ma dem pour que le président Ousmane Sonko ait le maximum députés. Et Askan Wi lolou kan moma je ci fek kuko meuna dindi waxal quand on appelle à la aux cotisations damay dem ma cotiser parce que c'est ce que le président Ousmane Sonko a besoin dafa ne ñu cotiser la dernière fois c'est euh, le samedi passé hein. le samedi passé la avons def fundraiser ma dem yalla dimbali ma ma woo sama ben xarit bu la bir mané ko kay nga la ñu écoutez-moi un patriote ma viens nous assister à notre fundraiser il est venu il a donné 9000 euros écoutez moi hein? 9000 euros parce que yeen a nek euro dollar presque ni le légui à tête. il a donné 9000 dollars 4000 et l'autre 5000 promis promis 9000 dollars et moi j'ai donné 1500 dollars 500 et 1000 promis buñ len di wo yenn ñi Paris sama xaritu liveur yu yu yu nga toujours vous de grosses révélations ngir dem cotiser ci projet il faut cotiser mettre de l'argent li mola te vous campagne ngeen campagne mbir mi yeb du rek xam nga réseau yi neex na ci télé di wax di di ki di wax di conscientiser wonderful mais président Ousmane Sonko nee ñu génn ñu dem défi ay porte à porte ñu wax nit ñi ñu enregistré wu pour voter té ba paré buñ leen enregistré lo pour voter ñu fexé aussi ñu cotiser parce que Pastef parti la bu amul xaliss bébé la dañ ko wara tété xam nga bébé boko juré sa bir kër nen na do ko né wuti liggéey dang koy toppatoo mu mag Pastef non la mel c'est un petit parti politique aujourd'hui qui est devenu un grand parti politique. Un grand parti politique pour nous faire. mais sama m'a xarit yi mom ñu ngi ci ay li waaw ñu leen un million ngeen yëkëti deux jox ko ko da et pourtant vous avez utilisé le nom de Ndeye khadi pour faire le lit. Arrêtons les manipulations, arrêtons les mensonges, arrêtons d'essayer de salir nos frères et nos sœurs Lolo du yon, yalla deug la bëgg bëggul fen barki demb ba légui, yena nga fi di tabaka dal pourquoi pourquoi pourquoi barki demb ba légui, ngeen nek ci sama derby, man luma leen ameel je quoi ay fen ay sos Morgan talna live muy sama vraiment il se sent dégoûté parce que y a Gabriel Kan qui m'a appelé dans un live j'ai participé avec mon frère Mola. voilà Mola, son téléphone était faible parce que déjà damay leral dara là. muter Ben nit ci téléphone y ñaar ñep ci téléphone. live bi y a un seul bouton de mute quand je mute Mola... damay muté sama bopp loolu mooy dëgg quand je mola Mollah damay muté Ousmane Tounkara donc mënumaa muté Mollah loolu mooy dëgg c'est ça la vérité léegi naka la ñuy jëlee naka laay jëlee ku mel ni Mollah mayor ko ci ab live Comme euh, Gabriel vous vous me dites que vous les Sénégalais vous me dites les mêmes Sénégalais hein, qui parfois je vois ils invitent des personnes de tous bords et ils parlent avec des personnes de tous bords ils me disent pourquoi Gabriel Kan a appelé ton téléphone ma téléphone en a il fait? c'est vous qui payez mes factures c'est vous qui venez chez moi et payez mes factures c'est vous qui allez me dire avec qui parler, avec qui ne pas parler, avec qui, euh, euh madame, j'ai 49 ans, je vais laisser mes petits frères et mes neveux et mes fils me dire comment vivre ma vie. Je vais vous laisser. 100 000 dollars, quand moi dire 100 000 dollars, envoyez-moi 100 000 dollars. Allez-y. Envoyez-moi 100 000 dollars. Donnez, allez-y, allez-y, envoyez-moi 100 000 dollars. J'habite dans un titre foncier. Boguma par parlo, boguma amna lo xamne ko won sénégalais parce que boguma xam nga boguma melni damay poukaré ndax yalla ko poukaré. Vous allez me donner l'argent Non. Vous allez me changer la vie Non. Tout ce que vous allez faire, vous allez rester derrière vos écrans, critiquer. Wa Ousmane Tunkara, pourquoi Gabriel Kanouoko? yena ma mom yen yen en a ma j'appartiens aux Sénégalais je ne suis pas d'accord avec Gabriel Khan. Gabriel Khan, beaucoup ko 3 trois heures du matin dina Ousmane Tunkara c'est mon ennemi, mon ennemi mon ennemi numéro un là, parce que mon mënumaa ma ak comploter sur le dos des Sénégalais et j'ai dit à Gabriel Khan, clair et net je pense que toi tu es la plus grande comploteuse du Sénégal parce que Adisar, tu ne peux pas être derrière elle avec les mensonges Nek, Sarr j'ai invité Gabriel Kane pour qu'on demande des questions très précises très précises très précises la wax Madame Gabriel Adisar, Sarr dafa Gabriel Adisar, Sarr dom. Gabriel certificat médical bilan lan Adisar, ci violé Gabriel Adisar lim l'en wax ana film Gabriel Adji ana photo yi c'est pourquoi j'ai laissé Gabriel kan entrer ici vous pensez que j'ai laissé Gabriel Kan entrer ici pour que ma def ko quoi voilà sénégalais Gabriel Kan dugg na a a ko bu non non non non le jour que Gabriel voudra euh, faire ça elle n'a qu'à appeler les sénégalais Natal live natal live à moi, mu ne sénégalais yi jéggal leen ma wala mu sénégalais yi damay kay ak man lool lay def su ma pour wax j'allume mon live à moi-même déglu len pendant le temps que nous on est concentré sur Ousmane Tunkara, qui est qui n'est moi je suis pas candidat présidentiel au Sénégal hein. je ne serai rien au Sénégal donc attaquer Ousmane Tunkara, c'est presque peine perdue parce que man xëccoowuma ak yéen écoutons ensemble ce qui est les réelles paroles de suñu frère Pape Ndiaye de Walfadjri il a am na loo xam ne daf ko wax ça m'a choqué allons-y. te euh, procès mën na cee am. Mm-hmm. ñu ñu ci bari du njort comme ni nga ko jortee ne procès la ñu jëm. mais euh, damay dégg ñuy wax ne su fekkee nar nañoo dem procès moom Ousmane Sonko warul jóge këram dem procès. Mm-hmm. dans les normes prison la war a jógee dem procès est-ce que loolu da nga koy dëggal. waaw loolu loolu laaj bu am solo la. Euh, bu fekkente ni doyen des juges dafa décidé ne di joxe noonu yi day day yóbbu mbir mi ñu àtte ko. Hmm. faw Ousmane Sonko dem prison. waaw mën nga ñàkk. yoon moo ko tëggee noonu. Hmm. doyen des juges déglu leen bu baax li may wax ñaari possibilité la am seetal ko may ko noonu yee wala yóbbu ko ñu àtte ko bu décide bés bu bu décidé ni dañuy war a yóbbu Ousmane Sonko loolu mooy égal Ousmane Sonko dafa war a dem prison. Hmm. ndax tribunal bi ñu war a àttee wàllum viol foofu pour ñu àtte la fa faw nga dugg kaso. Uhum. am ah, na solo de mënul nekk wala donc su ngeen déggee ñu ne ah doyen des juges décidé na renvoyer mbir mi jugement loolu na chambre criminelle pour nga comparaître fa da o prisonnier quelques euh, ay jours avant avant yëf yi mm-hmm. donc bu ñu jàppee ne procès dina am jàppale ni kon justice décidé na Ousmane Sonko dafa war a dem prison mm-hmm. a teree dem prison bu ñu décidé ne procès day parce que chambre criminelle moo ko war chambre criminelle pour ñu ko xam mooy ancienne cour d'assises assise mhm. cour d' assise la ñu soppi mhm. donc il faut fa comparaître libre balaa nga fay comparaître da ngay constituer prisonnier faut nga dem prison ba mhm. donc loolu mooy li nga xamante c'est moom moo ci am loolu mooy sew-sew bi ci avec tout ça l'entourage de Ousmane Sonko est vide les jeunes patriotes qui faisaient les lives autour de Ousmane Sonko ils sont tous arrêtés Ndongo Job Demna, qui euh, ci moi euh, Job Taïf je ne sais pas euh, notre frère là Job Taïf Demna, ñom Papito Kara japp nañu len les Ousmane Diagne qui nga xamné Ousmane Sonko dans dem day daw momit mu yor caméra elle est parti il est parti toutes les personnes qui montraient Ousmane Sonko en temps réel ils ont été cueillis et mis en prison laaj len sen bop demandez-vous la question lan mo waral Macky Sall lepp lu wër Ousmane Sonko ci walu sécurité ak ci walu visualité mu bëgg ko japp suñu caméraman ba on l'a assassiné fatte ngeen suñu caméraman ba suñu boy bu xarañ ba té mu àndoon ak suñu garde corps ils ont été assassinés par ce gouvernement de Macky Sall c'est que Sénégal nak kenn ñemewul wax dëgg parce que ñi nek Sénégal dañuy xam dëgg yeen say way ñemewuñu ko wax. comme notre frère Philbert Sambou et DJ Badji ils ont été assassinés waaye ku le Sénégal bu juumee ba wax ci ñu jàpp donc tey dem nañu ba Sénégal tu vois j'ai entendu j'ai vu un post de mon notre frère Moustapha Nyan qui dit que tout le combat du Sénégal maintenant se fait dans les réseaux sociaux Ken génnatul ken xeexatul ken waxatul lu léegi maintenant la seule chose que nous avons le temps pour faire diou sàcc la ray katou nit la bayam moo rewoon kii ndeyam moo fenoon fii bàyyam moo demoon fële diwam moo guerre c'est ça le combat du Sénégal aujourd'hui et les personnes qui le font c'est des manipulateurs gars man amna énergie xeex de waye parfois dama ko jombal sama bop sen tappale yi xam ko je vous connais je connais mes frères man xamna ay Akhenaton ton xamna la ba mu jeex tak parce que on était ensemble man maa la daan oubil nga tal ma live may la nga wax une trentaine de minutes les les les les les trucs sont là hein. ton man maa la introduire sénégalais yi la daan oubil live nga dugg wax ba doyal après lolu ngay dugg ci ñom mati trois pom ak fépp c'est moi qui t'a introduit au monde man numa len di bañé c'est un petit frère qui me respectait beaucoup quand même Légui nag xam nga dafa rew xam nga légui xalé ñom dañuy rew dañuy jékki-jékki rek yek seen bop commencé jaay réewande ay xattar nangam ay sëriñ si nangam ay li nangam lolu réewande la Je n'ai rien à justifier Jean Niassi je ne dois rien à personne je ne je ne justifie rien xam nga man comme sénégalais yéen da ngeen am Qatar. di bëgg bu nit ñi waxé rek ngeen tëb di dal c'est pourquoi vous m'entendez je je me prononce de ces choses je n'ai rien à justifier man awma sala yaay nder bu ma amel sénégalais est-ce que xam ngeen ma ndee la laaj leen suñu xarit yi nek Amérique ñu wax leen je suis un de ces sénégalais fi ma dëkk sax amul africain donc duma ma fëggi buntu kenn ne may ma xorom et eh diw am nga fa tuuti diw li na ah? soble des na jamais buma paré paree xulóog yéen damay dem defi dibi damay dem tali sama sama four bii ci biti étalé ko ba mu nice def dibi Sénégal mako dak ci dëkk bi ku ñew ku bëgg lek lekk ñëwal je te le donne man dëkkuma sax fu Sénégalais dëkk mi ngi je vais vous dire ils ne sont pas là hein. voilà je ne suis pas là avec les Sénégalais ma wax leen voilà je suis là wax leen ma fu Sénégalais nek fi amul amul ben Sénégalais bu fi il y a aucun aucun aucun aucun aucun sénégalais zéro Mingini, aucun Amoul. amul ben sénégalais bouffiné, il n'y a aucun zéro nada Amoul, ben, vous ñu wootee si lay conduire des kilomètres madame fekki sénégalais sont s'en ak je sors d'ici je vais des kilomètres pour chercher les sénégalais dans les quartiers.